Ronse am na avertissement Lac Rose am na avertissement ndeysaan Lac Rose lañ ko doon xaar ci moom gisuñu ko Médoune xeex lañ doon xaar ci moom ndeysaan baaxul baaxul ña ngay lewtoo considère jàppi considère jàppi Lac Rose day door considère jàpp considère door na loxo bi yéex na eh, ñoom ñaar ñëpp sa loxo daa yéex dañoo sonn laa ilaaha illallah ña koy foqantee baaraam ña koy foqantee baaraam mi ngi seere combat bi ni mirun ah. mi ngi seere combat bi ah. kii mi temps dem dem déglu ay mbokkam ndeysaan kon si daal di dóorante eh. si jàpp na ko jàppante nañ laal te day xool coup bi moo tax neexul a touché mi-temps jot na lii la bëggoon mi jot na. na tóor na xeex moom na raag moom ñaari at a ngi barewul jàmbaar la jàmbaar la dafa bëgg waa famem bëgg maamam bëgg waa koñam lak day daan mbër bi nañ di raag nañ di xeex door ko mu daanu nañ di xeex. benn Coins na fukki minute ku ci nekk seet say mbokk waaye Lac Rose daa bëgg a jeexal laa mu jëm wala des na fukki minute. daa yéex na sori na taxaw di xeex à droite amul fenn ndeysaan tànk bu ko Coins tegal moo baaxul ndeysaan Coins Lac Rose ndeysaan ay mbokam liir nañ waaj de liir ko day xeex kenn su jëloon tànk wala mu songo am na dara waaye daa diit match nul la fii te moom ci ay match nul la jóge moom Quench diggante ak double moteur ah. diggante ak Diène Kairé benn meilleur attaque la benn match nul ndeysaan pàttu song gis naa ko de wala dóor song. waaw mi ngi dox ci kaw moom Coins da koo cadré cadré na ko cadré na ko da koy song léewtoo yi dañoo dagg léewtoo bi dagg fanaanal wala Touba Dakar. ndeysaan. maa ngi ko coppet. non mënu ko coppet ndax dañoo foqantay ca kaw. loxo droite Quench mi ngi ci loxo góosu dóorante nañ dóorante nañ dóorante nañ dóorante nañ dóorante kor na ko korante nañ coppet. ma de. Quench waa yow eh, kor na ko ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha faqat. da koy jeexal. sànq Coins day jeexal combat bi de. mais Coins Médoune. eh fa ak da ngaa bëggoon a bëtt demi fraction bëtt la bëggoon a def waaye loolu ku sonn Médoune du ko def faqat na ko mu raam faqat delloo na ko daan na ko daan na ko daa yambar wala sonn. daa sonn ah. mais lan la lan la lan la ah. oh déjà. la daanu Lagros waru woon daanu Lagros waru woon daanu waaw Lagros waru woon daanu Lagros waru woon daanu wéyooy wéyooy wéyooy wéyooy wéyooy wéyooy wéy sama ndey ndeysaan Pape Ndoye jógal lamb la lamba gi noonu bokk ndey koy jur ndeysaan Pape dugal ndeysaan dañoo rus dañoo wuti ñàkk mi ngoog le gros a waa Fass añ koy tàcc. waaw mais lamba ni mel. ndam lu indil la leen ko Ibrahima Mbaye ngi noonu waa Fass yaa ngoog doomu ndaye lamba ni ngi noonu. ndeysaan ñii ngi tàcc ñii jooy. daal ñii fair play loolu ñu def. te nga bokk ci entraîneur Fass. ñu gis na Lac Rose physiquement taxawut. non du physiquement taxawul nit ki dafa gëj a bëre day feeñ ci am entraîné na bëree a bëre day am gëj a bëre dafa am gëj a moo jàpp si na ko war lu mu war def yàlla may na kay ndam noonu la demee bu ko entraîné bon yàlla loolu dogal entraîné entraîné na gëj si lamb la gëj na toog na ay cinq ans kii su entraîné woon kon si mi entraîné gis nga ne jeexul mais moom dafa jeex ci biir combat bi. muy compétir saa su di bëree gën a lagro ah, la laa lay wax. lool day feeñ si géew grand. mais est ce que mi ngi doon contact. bu contact loon dem li moom am. la yàlla ni la dogal. oui. demal demal Sall. est ce que zone bi wér na. non lagro amul benn problème yàlla ñëw mu daanu mu daanu noonu la waroon tamit te dina entraîné waa dina gën a ñëwaat si lamb di beneen Lac Rose xëy lii bu mu léegi bi mooy premier combat am na blessure ñëpp xamoon nañ loolu mm. combat yi mujj mbëri yëpp ay blessure ay blessure la ko bëri ay mm. dogal na mu wër entraîné ñëw combat bi jege na gis mu jàppandoo woon ci yow sa contre moom Moussa Ndo a Iba Mar bi mu mitaayoo la jàppandoo sa kaw ci laa xam ne sama xel teey non contre Moussa Ndo jàppandoo ma maa jóg tas combat bi daa ñëw jàppandoo sa kaw non man maa ko amandoo déedéet maa ko lëng ma mais tey lëngaat na la. non lëngu ma dafa teg loxoom rek. ma ma non maa doon maase loxo yi du cax mu teg fi loxoom. loolu affaire rôle entraîneur la. def na lu ko war si lamb ji yëpp dogal. ni mhm. nga koy bu wër. amul ah, dina préparer xale la dina préparer gën a entraîné moom laa la wax. mais blessure yeewul la. non non si lamb bilaay walaay maanaam lu ma naan. est-ce que jotul tey mu gunge Pape Ndoye bàyyi bàyyi ko. gëjëf na xale bu ndaw gunge loolu mais kon na xanaa kon ku daanu bàyyee kon kon ñëppay bàyyi la mooy dogal sunu borom mooy maye nit ku ne boo doon sa bopp kenn du kenn kenn dara dañ koy sant yàlla boor li am ni sant nañ ko yàlla boor a dugg Grand Dakar gu dugg ñaari tali dugg benn tali ni ngeen sonde ci bi ak combat bi nii mu jeexee waaw sant yàlla parce que dañoo def suñu wareef ku nekk sa wareef nga def. ndaxte tey suñu defutoon suñu wareef amaana tey ëllëg moom sax si boppam mun naa am baat si suñu kaw. suñu wareef mooy tey jii soo amee bis ñu ñëw topp si ñu si ginnaawam parce que après tout ku si nekk tey jii nii luñ naan ragal péete day xañe wërsëg. ñun Grand Dakar NGB la am. Mhm. fépp fu ñu képp si lépp lu ñu mun munti nekk quand on travaille. Mhm. quand on reporte des combats. Mhm. on le fait de manière objective. mais après tout dañoo am xol. dañuy bëgg. ku ci nekk day far sa borom sax tey dafa far far ak Quench dëgguma la dëgguma la mais li ngeen daal mobiliser tey par rapport ak yu njëkk ya waaw mënul ñàkk parce que tamit xam nga stade Demba Diop jege woon nañu Iba Mar jege woon nañu tey dañuy def déplacement dérangement ñëw fii ba arène national xam nga am na différence mais dégg naa tamit la grosse dafa toxu waaw Lac Rose dafa taxul dëkk. est loolu ci tamit. dafa taxul dëkk ASECNA waaye teewul waa NGB ñëpp jog nekk si si ginnaawam ndaxte presque à deux jours du combat dama lancé woon benn cagnotte. ne nañ jóg soutenir suñu ay doom. ngir tey ji une bonne mobilisation mais les gens ont répondu ku nekk génnee sa dërëm ak sa ñaar dërëm vraiment ñu jënd ay billets yu bari ku xool tey jii ni xam ne Quench ñu dara si mbooloo ndaxte tey amoon nañ tey ñetti xale yu si doon bëre macha allah muy Ibou Afia numéro 2 mu daan ak ki nga xam ne ni moom mooy. ñetti booy su ñëw est-ce du yarax. non même pa du yaraax parce que tey gars yi Lac Rose nag quoi qu'on puisse dire dafa ne ci xol yi ku ko waxal yàlla rek xam ne bu mu tuusee wax dëgg yàlla képp koo xam ne nii saa ya ngay dund làmb sa xol tooy na te sa sa sa sir jëngu na mais Badou nag est-ce que jotul tey Lac Rose jël ngemb leeg sengoor yeeg lapataake yeeg dàkk ak ndaam yëpp jox Pape Ndoye mukk nga ne mukk Lac xale la xale la mais ñaari combat bi nu mu jeexee deux derniers combats bi nu mu jeexee ñëpp xel tey nañ Lac Rose c'est un jeune xale la mhm. ñun su waree bàyyi du ñun ñoo koy wax wala kenn moom mooy xool boo xam ne instant bi dafa war a bàyyi mhm. mais dafa toog ñaata at compétirul compétirul benn mu amoon blessure mhm. mu jóge ci blessure te lamba ji nii xam nga dafa di jàmbaar rek mais bu ko doon yàq lamb ji nekk na ci entraînement yi xam nga du bëgg tey jii nii saltel victoire jàmbur wala tey jii nii wax yenn détails yi mais dañuy sant yàlla mais Lac Rose su waree bàyyi ma wax dëgg décidé del il est encore jeune xale bu ndaw la saa borom nag moom moo def ay tolof tolof si carrière mais day taxaat ngemb li entraîné waat xam nga ñan saa borom mu ñëwaat te billaay wallaay wa taalaay wanewul yaa fuus. loolu quoi qu'on puisse dire bëri na dix minutes. te ñëpp xalaatoon nañu ko Quench dina ñëw dox si kaw Lac Rose du mu ko daan ko Lac Rose moo attaqué moo kañe xam nga yàlla def nag mu daanu. mais dama am benn question bu doy waar bu ma la a laaj. Mhm. Amadou Kat Diop ku ma sa gis ci ginnaaw Fass sa xel mhm. ko gis ci ginnaaw Fass sa xel dal. Mhm. tey ñaari ñooñu nga xam ne ñooy moteuru Fass. ñooy directeur am combat capital gisuñu leen fi lu waral lool. waaw xam nga tey am na loo xam ne nag dafa am ñu ko war a waxtaanee. dëgg la ñun on est que kon problème am na. non non du ma ne problème du ma ne problème am na man je n'avais même pas fait ce constat parce que tey jii nii Gris Bordeaux su ñëwee rek fàtt na fépp benn. mais Gris am na ko doy de. ñëw rek Gris su ñëwee fàtt na fep benn ñaar Ibrahima Mbaye su ñëwee fàtt na fépp waxatuma la ak Socé ñëw ndaxte équipe la ça ne veut pas dire que tey jii nii tey Fass dafa nekk structure boo xam ne nii suñu suñu suñu amee bis dañuy yebal ay ay coach Ibrahima Mbaye lañ yebal. soose lañ yebal Gris Bordeaux magam ñëw magal ko foofu la doon doyee waar suñu gisutoon Gris Bordeaux ñu mun a wax tey su ñu gisoon Amadou Kati Diop te gisuñu Ibrahima li ñuy wax nii la demee Lac Rose naa bëre Tafa ñëw et cetera et cetera Tafa beneen mbëru Fass yàgg naa bëre Tafa Gueye du ñëw Amadou Kati Diop du ñëw Ibrahima Mbaye indi ko ak Fass ak soose indi ko mais am ah, loo dégg ñu ne combat bi yëpp ko Fass waa waa Guédiawaye ñoom Sa Thiès la kontaan non bokkul mi ngi doon mi ngi doon ñëw écurie Fass di entraîner mais ci koor gi ñëpp xam nañ ne écurie yëpp dafay dañuy def trêve guddi gi ñu si bëri guddi gi la ñuy entraîner te soo xoolee koor geeg léegi koor geeg léegi soreewul xam nga mu nekk si dun yi doon entraîner xam nga mi ngi doon daal mais ñu ngi sant yàlla daal di ñaan saa borom defet bi jikko xam nga di ñaanal ko si ndam li jikko aussi te di di di wax daal yàlla baax di sant yàlla baax dina baax jaa jëf ba du 100 pour cent Yankhoba Diattara mën nañu moom parce que biñ ko dénkee ministre des sports yàggul comprendre nga mais tey jigadiw ko parce que ay ay ay ay yu bëri dugal nag fi comprendre nga kon jigadiw ñu quoi dañ koy ñaanal nag xale la jeune la mu gën a yokkaat comprendre mais ndam li fan la la mën a yóbbu. ndam li daal déggoo li ma la gars yi daal man maa ngi xaar rek incha allahu rabi. naan guy gi de. waaw man na nekk mais dama bëgg Lamine nga ñëw jël lii ne Bargny man lool laa bëgg nga déplacé wu fii. lan moo nekk Bargny lan moo fa nekk. dañuy ànd de du nga ñëw jëli lii ne Bargny. waaw incha allah Lamine man loolu rek laa la ñaan. a di la bëgg baax a baax. mais tey da ngaa la. waaw dama am rek. loolu moo waral gis yàgg la grosse ngeen lagg daw ay 100 mètres. waaw Baara Ndiaye taxaw à gauche général taxaw à gau à droite. waaw euh, euh, la grosse nekk ci digg bi tey ma gis nga toog. waaw mais xam nga sax maa ngi doog a toog parce que li waral si may doog a toog noonu moom moom mi dem na si géew bi. defar naa moom li ma defar moom lépp. ànd na ma ak moom fi war a ànd moom fépp. diggante man ak moom wàccoon na ma ak moom instant bii nii léegi li ci des moom mooy yàlla mi nga xam ne moom mooy kun fa yàggoon di jëla jëlaaloo yàlla sutura ko may ko ndam fii mu dugg te am naa si yaakaar te wóolu naa ko tamit ndax su ma àndee moom du ma tiit ndax moom ak lu ma di xew moo xam mu daan moo xam mu daanu li ëpp importance ci mbër moom mooy dafa ñime ma me plaît beaucoup loolu dafa loolu dafa ma neex ndax contact ngeen yéen ñaar bu baax bu baax bu baax côté ci ginnaaw da daan yëg ci la grosse ak fu nii ndax yaa ngi koy yëg ci moom déggu dix ans ci ginnaaw la ko daan yëg ci la grosse ndax di la grosse mu ko daan yëg ak mii benn bu baax a baax ndax mu tax maanaam mën naa ne âge mën naa gën a yokk tuuti mais ba tey jii nii li nekkoon ci moom bu yokkul wàññigul parce que benn jamono amul expérience mais léegi expérience bi dugg na li ñu doon entraîné ak ni ñu entraîné léegi nekk benn parce que lépp loo gis entraînement euh, euh, euh, expérience la te expérience bi ñëw na si ñun donc moo tax tey ji combat bi ko foo xamante ne ci wàllu entraînement si lamb nag lamb la yalla moo xam kii daan am naa droit ñaanal sama mbër am naa droit ñaanal sama doomu ndey ma yàlla may ko ndam ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais amul lu may diit ci Lac Rose Quench du bëre ba du xeex ba du doole ja barke Seydina Mohamed amul lu ma koy diital ci Quench yàlla na moo xam ay dogalam ah waaye billaahi wallaahi taalaay su ma neexoon tëdd sama lal nelaw non Quench lan la mën a jaay Lac Rose ci làmb amul amul lu ko mën a jaay ci làmb ñu ngi naan jàppante jàppante jàppante bu ñu jàppante nga xam ne Lac Rose dafa am doole macha allah. victoire fan la la mën a yóbbu. waaye Lac Rose bu daanee kawoon ci bokkaat ci course bi Lac Rose képp kuy takk ngemb ci làmb bëgg ngaa bëree moom. parce que li problème mooy li làmb laaj dafa ne si moom xëy na ay trop la moo ko jàpp mais Lac Rose bu ñu ay trop la kon tey jii nii fi ñu dégg ay ñoom Ama Baldé ay ñoom Boy Niang moom moo leen devancé parce que Lac Rose bi ñuy wax combat ak Lac de Guiers 2 je te rappelle très bien booba du jamono jooju boobu tuddugun Ama Baldé tuddugun Boy Niang barke alxuraan ñu toog suñu kër ñu waxoon téléphone yi wax ko maama Boy Niang ak ak Lac de kon donc tey ji bu làmb demee nii mu am retard si làmb moo ko waral mu bëri kii mais Lac bu daanee combat bii nii tey ji comme daanaka ay loxo nga may ko parce que li bëgg si làmb mi si moom li bëgg mbër si mi si moom bu dee tur am na ko bu dee fukki bi am na ko bu dee bëri am na ko kon lan si des daan daan na daan rek làmb ñaar la daan ak daan su daanu amoo lan la non yàlla yàlla si yàlla musal amoon tamit man mbër laa sama defet bi ma gën a naqari mooy sama combat jat li xam waral loolu damaa deful dara bëriwoo xeexoo ñu daan daan ma loolu moo naqari mais su ma ñëwoon xeex bay bëgg a dee bëri bay bëgg dee ñu daan ma sama yoon nekku parce que làmb ak looloo ànd boo ñëwee si làmb wane dara ñu daal looy wax say suba dee looy wax say mbokk dara Baara Ndiaye fan la mooy dama amoon feebar bu nekkoon si man sama diggante Cobra yàlla mi da doon faj man ma bëre yeneen adversaire parce que am na euh, comment dirais-je euh, man euh, j'oublie le nom mooy mbër mbër doomu nday nees boobu noonu non non non non turu turu turu turu politicien la yor xam nga Mandela xaw ma kan mooy gars bi nees rek kooku daal sama combat moom ñu wax nañ ma ko léegi fii man leen man susi la leen daal xam naa ko du ma bëre ku mu wër te bëreel mara naan du ma naan xam naan puudit damaa làmb bokk si làmb ji maa nga sama liggéey di liggéey nag saa bu ma xëyee damay dem sama place ñaawi xam nga di di lijjën sama xaalis di lijjën sama sama njaboot donc kon xaaruma làmb mais dama bokk si làmb te bu ma ma am combat damay ñëw bëri daan incha allah. mais dama gis écurie Fass ay jeunes yëpp leen Lac Rose jeune Forza jeune Bara Ndiaye nekk ci ay tawat seen entraînement la wala lan la. non xam nga nit ak jàmm ak pexam yàlla ak dogalam doxatala mënu ñàkk ci doomu aadama. mais nag ak lépp lu mën a xew rek dañ jàpp ne yàlla la rek ndax jullit moom bu amul lu gënal du am benn ndog-ndog mais nag ndog bu la arrivé sant yàlla bu si déwu rek alhamdulilah rabbil alamin parce que ñi dee gënuñu leen ñi am ñàkk seen bët gënuñu leen ñi ñàkk seen gënuñu leen. ana Moustapha Gueye bu baax a baax a baax a baax. waaw mais xam nga père moom li muy nekk France ak li muy nekk Sénégal. ah, ah li mu fay nekk moom li muy nekk Sénégal la moom. taa yoo xam ne père moom. am directeur technique. Ah. xamuloo fu mu nekk non du question ñàkk bu mu nekk damay la père kilifa la. c'est un quelqu'un boo xam te ne am na lu ko lu ko lu ko réew mi soxlaawee. Lac Rose du du ko benn mbër bu ndaw bu nekk Igri Fass. waaw mais dafa war a ñëw ana kat yi. xam nga problème bi. la la. maanaam kilifa si boppam. ak lu mën xew. Tapha Gueye da Sénégal da koy soxla. extérieur da soxla. tey ji am na loo xam te ne bu ko tegee extérieur ak ku mën di bëri doo ko fa gis. yàggaa gis Gris Bordeaux bëri gisoo Tapha Gueye parce que li waral loolu mooy day fekk mu ne ay ay circonstances loolu day am berkat yi tamit même chose ah ah. mais berkat yi ak lu mën a xew ñi fi war nekk ñëw nañ fi ah. berkat yi jom moom moo yor équipage mooy entraîné ñëpp moom xam na lépp kon moom bu ñëw dañ la alhamdulilah rabbi ndax am na loo xam ne yabale na ko ñi mu yabal ñëw nañ ba teew mais entraîneur yi gën a xarañ Sénégal Amadou Kati Diop la ak Moustapha Gueye Lagros am combat capital ñëw ci stade bu ñëw ci stade bi dugguñ ci bi xam nu ñuy def lañ ko wax kër ga moom lañ ko wax fii tey fii lañ taxaw wax ko fi lañ ko wax dem dem toog am na wulamul liñ ko war a nan ko ko li ci des moom moom moo ci des moom moom moo war ndax ubbi yëpp def gaga ubbu làmb la mën di conseil dan lay conseil ba dañoo ma toogee nii rek bàyyi la ci des ak yow kon nag li bérekat def na li mu war def tafaga def na li ak lépp ngi fi def na li ñu war def li ci des mooy lagro yàlla na ko yàlla sutura may ko ndam loolu nga bëgg. non du yomb sama retour mënul yomb de. Baara loo def xale yi. barke Seydina Mouhamed Kajoor gi ba ngi di ma xaar. sama dëkk nee naa la Kër Madiagne gi ma dëkk dong dong dong dong dong. wulaay la Hachim jamono ji ñu toll nii. am na boo xamante ni nii su ma amee combat barke Mouhamed dina xam ne Baara Ndiaye am na fu te loolu nag pour mu am du lu wax mais lu ma bëgg a jëf la. mais man départ Baara Ndiaye ak général ak la grosse ñëpp dañ ñëwoon lamb ji seen loxo ngeen koy téye ba ci ak ngeen am baisse de forme lan la. cat moo ñu sonal rek. ah doomu aadama yi. parce que ce que teel la noos. non même pas yow xam man boo ma xoolee man ngaaka laa man mun ma noos. baara doo le jure ngaaka laa ba léegi. baara doo ngaaka. yow ñëw ñu waxtaan kenn du yow nag. Ah, macha allah yàlla na yàlla defal jàmm. sa liggéey rafet na. ndax da yaa ko teg si yoon. parce que yéen mbëri dañu ñor. yàlla na leen yàlla jàppale ba lépp lu ngeen ci yóodu. yàlla defale ko ci barke Yonent bi sallallahu